Diallo suñu correspondant fële euh, ca Ziguinchor xam leen ni euh, président Ousmane Sonko bu parti Pastef euh, ak nekk foofu ca Yewwi Askan Wi moom daal dinay voté léegi nii xam naa réaction am dinañ ko am si kanam aywa bu ñu xoolee Birahim peut-être mbir mi ni mu tëralee fi mu nekk nii tantôt niñ ko déggee léegi avec Néné Fatoumata Tall mu di ministre de la jeunesse ànd ak kooke nga xam ne moo di Aliou Sall maire Guédiawaye moom nee na démocratie bi fi mu ne on peut dire que c'est déjà vote euh, dem élection mm-hmm. déjà mooy démocratie ndax démocratie moo tax ba nit ñi mën a dem voter te mm-hmm. le Sénégal vote depuis déjà Euh, fort longtemps euh, mode de scrutin bi dégg nañu ko bu bees la waaye bii la ñu gën a asseoir démocratie parce que bii la ñu may citoyen sénégalais bi ci commune bu mu nekk mu mën a tànnal boppam ki nga xam ne moom mooy jiite commune bi. avant conseiller waaw avant mm-hmm. conseiller ñoom mm-hmm. ñooy petoo seen biir. négocier yenn saa négociation yu jógee ci kaw di présidence la république ñu ne ni euh, finalement du Mansour lañ bëgg mu jiite donte moom moo tax ñu bari génn dem voter mais nañ jël mbir mi dénk ko Yacine. Mhm. mu bari woon ay frustration bi la yoon ñu ne Sénégalais bi citoyen bi ca commune ba nga nekk ca ville ba nga nekk ca département ba nga nekk. yow am nga sañ-sañu tànn ki lay jiite donc loolu déjà c'est un acte euh, c'est asseoir la démocratie. Mhm. maintenant démocratie. elle est toujours à parfaire. Mmh. et c'est le cas pour le Sénégal parfaire démocratie mooy déjà fexe ba tout citoyen bu ko bëgg nga mën a am carte d'électeur carte d'identité mm. CEDEAO mën a dem voter ci anam yi nga ko bëgg a voter voter ci heure ba nga war a voter muy ci heure bi ñu wax ni moom la ñuy ubbi bureau de vote yi ba heure bi ñu koy tëj muy de huit heures à dix huit heures loo xamee ni code électoral bi lijjanti na ko depuis ci ñu jëm ci wàllu membre yi war nekk ci biir bureau de vote loolu tamit lijjanti nañ ko depuis mais démocratie bi gën a mooy fexe ba képp ku bëgg participer ci ay élection nga mën cee participer mhm. képp koo xamee ne da nga war a euh, voter nga mën a voter également et en toute euh, euh, liberté. très bien ñu delluwaat Ziguinchor ànd ak Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diallo yaa ngi sans que ça passe par le gouverneur et donc et par le préfet. Donc leurs responsabilités sont entièrement engagées. Euh, si ces cartes ont été directement remises par euh, le ministre de l'Intérieur, c'est tout aussi grave. Mais ça n'empêche pas que le, gouvernement, le gouverneur et le préfet doivent agir pour euh, les services compétents, d'autant qu'on a saisi même

favorable est acquis. Donc c'est peine perdue. Quant euh, euh, au transfert d'électeurs, effectivement mis en place un dispositif. Comme je l'ai dit dans le meeting, c'est une question locale. Les votes se passent dans les quartiers et les gens se connaissent dans les quartiers. Et l'instruction que nous avons donnée, c'est que tous ceux qui n'habitent pas dans le quartier, tous ceux que personne ne connaît ici, n'accéderont pas au bureau de vote les jeunes prendront toutes leurs dispositions pour que tout ça se passe Et le troisième élément maintenant, c'est les informations sur un dispositif pour que les bulletins de Yéhu Askanui soient très peu en rupture. Nous avons donné des instructions là aussi, avec un dispositif bien huilé. Tout bureau de vote constatera, constatera la rupture du bulletin de vote de Yéhu sera systématiquement bloquée jusqu'à ce que ces là soit réapprovisionné pour que le bureau puisse continuer à travailler. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de fraude, ou alors ce sera à la marche, parce qu'ils peuvent traficoter le fichier, mais l'élection, elle est d'abord physique. C'est des individus qui viennent voter dans des bureaux de vote où nous avons des représentants et nous avons mis en place un dispositif avec toute la jeunesse des Guinchors pour qu'au soir vraiment respectés et traduits, se traduisent par les résultats qui sortiront def nañu suñu war en tant que citoyen euh, def nañ ko ci en tant que candidat mooy ñëw nañu wote nañu di rafetlu condition yi ñu fekk fii ci suñu centre de vote ñun ñaa ngi voté calmement sëccoo amul buuxante amul problème amagul dañu ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci élection bu jógee ci te mu demee nii parce que après tout élection kese la vraiment su lii weesoo ñun ñëpp Sénégal la ñëpp Casamance la ñun ñëpp Jigéen Soro la ñu war se retrouver sans cette euh, joxante la ko liggéey donc am na loo xam ne jaru ko nañu respecté volonté Jigéen Soro waay am nañu sant ñu fànn ko leen neex. voilà Abdourahmane euh, Diallo moo ñu teewal foofu sa Ziguinchor à l'instant ñu ngi doon am réaction au président Ousmane Sonko bu yeewi askan wi moom mi di xëccoo euh, mairie euh, Ziguinchor bi wante bu ñu jotee un si li mu jot a wax Birahima ak Mansour dafa dellu si waat si problème mu carte d'électeur yooyu ñu nemmeeku ca Ziguinchor ba tax na ñu ngi dégg sax ni que ni si xibaar yi que am na ñoo xamante ni seen carte d'électeur yi ci ay kër lañ koy lañ koy daal di récupérer si c'est un on va la si code électoral wax. Mhm. code électoral excuse-moi il est très clair le sujet gis nga la la la distribution des cartes d'identité CEDEAO nga xam ne moom moo nekk en même temps carte d'électeur elle incombe cette à ce des commissions code électoral ci article euh, dafa xam le ni ci commune boo gis euh, par arrêté du préfet ou des commission chargées de la distribution des cartes d'électeurs sont créées commission yi ñu wax ba ci ñi ko composé muy président commission benn suppléant euh, désigné te ci biir commission bi préfet bi wala sous-préfet dafa am ku mu fay ku fay teg mais le maire ou son représentant mais aussi un représentant de chaque parti politique ou coalition de parti ci lu jëm ci ay élections territoriales yi ñu nekk ni mooy maanaam yow tey mënoo joxe yow carte d'identité CEDEAO bi nga xam ne moom mooy office de carte d'électeur ci benn kër dëkk wala ci benn meeting euh, parce que on t'a remis des cartes mais kan moo la jox cartes yi ba ngay dem di ko distribuer di ko jox Mansour Diop parce que xàmmee nga ko bokk na ci yéen euh, mu ngi doon changer carte am bëgg ko récupérer wala Yacine Seck nga dem bedd Birahim parce que da nga ne kii de ni ma ko xamee bokkul ci ñun ci wàllug euh, féetewul ci ñun donc dañuy retarder carte am ça veut dire que y un manquement mais et même il est très grave et qui Euh, Sonko nu ko waxee muy préfet muy sous-préfet ñoom déjà ñoo war a répondre à ces accusations là mm. parce que une carte d'électeur carte d'identité ce n'est pas comme ça lañ koy distribuer dafa am ay commission yu ñu institut euh, ci lool et les commissions qui fonctionnaient dix jours avant le scrutin mm. ci li ko la veille du scrutin donc ba démb ci samedi bi mm-hmm. la ñu waroon yooyu les commissions uniquement les commissions distribuer les cartes d'électeurs te ci commission yi